bëccëg yi ñaari waxtu jot na la ca gën a fës dañ koy tënk ci ñaari xët Force One déparé na États-Unis jëm ci Sénégal Barack Obama nga ca biir Sénégal di séntu gan gi boori gée ab karangeem Amérique bëggul dara gàkk ci ba waral lu jege juróom fukk ak juróomi milliards dugg na ci ci koppar moytu gi lu ko waral des nañu ko càmbar wax gi nga xamante ni nag bi mën na leen ko cee wax war leen a nit li mi yemale lañu leen def ba nag lu ca yi fu ca bari it duñu fa teew askan wi ñu yemale nit ba am ñu gis ni gan gi mi ngi bëgg a lakkale eh, ñu taxaw ci mbir mi waaye am na lu ñu ci nimiku ci ndakaaru ak cet goo xamante ni dugg si na ci nem sax maire bu ndakaar leeral na ni eh, soxalul dara kon ñëw ko bara obama bi beneen xët wi Modou Lo Eumeu seen combat bi euh, dootul am Eumeu Sène dafa gaañu démb ci entraînement am ci arcade bi euh, gannaaw ba mu ko seetee docteur bi di Ardo dëggal na ko CNG euh, annulé na combat bi kon yéenekaay yi la ñu xëyee tey gi Mamadou Mouhamed Ndiaye moo koy faram-fàccee ni tuut ñu yaatal lépp. yi di leen nuyu di rafetlu kon ànd bi ak TFM xibaaru digg bëccëg gi niñ ko waxee Barack Obama ñeent fukk ak ñeenteelu njiital Amérique dana doon ganu ko Sénégal ngoon la fi war a yegsi booru waxtu ci guddi yu tekk moom Barack Obama moomu nag dañuy taxaw dellu si kon ci ay jaar-jaaram mu nekk nit ku njul ku njëkk ku jiite kon réew mépp doole ci àdduna bi laata loolu am na fu mu jaar laata Diatta kon moo doon président nee na sénateur nañu ko xamee waaye bokk na ci li ko yóbbu fii euh, slogan boo xamante ni gëmoon na ko yes we can Ibrahima Kamara. Those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes we can. ñu ngi ko fal ñeent fukk ak ñeenteeli njiitu réewu États-Unis d'Amérique si mandam bu njëkk ñeenti fan si weeru novembre atum 2008 moom Barack Obama ñu falaat ko juróom benn fan si weeru novembre atum 2012 waajuram bu góor di nit ku ñuul soqee ko Kenya yaayam di tubaab bu bàyyee ko Kansas costefam di Irlande muy nit ku ñuul bu njëkk nekk njiitu réew États-Unis d'Amérique mu ngi gane si àddina ñeenti fan si weeru août atum 1961 sa dëkk bi di lu bokk ci réew bi ñuy woowee Hawaii mu Indonésie ay at yu bari amee ay lijaasam sa daara Columbia bu kawe ba ak université bu Harvard Obama nekkoon na travailleur social di liggéeyal askan wi sa Chicago ci atum 1980 nekkoon it avocat droit civil ba mu pare ay jàngam sa université bu Harvard mu jàngale droit constitutionnel sa université bu Chicago ba Obama soobu ci politique sa atum ñu fal ci Sénat l'Illinois bi mu def ñetti mandat ba 2004 ci weeru décembre atum 2009 ñu taqal ko raay bi ñu duppee prix Nobel de la paix mi ko delloo njukkal ci taxawaayam ci wàllu jàmm ci àddina bi maqaama Obama wàññeeku lool mu siiwal ne dana bokk ci jongante njiitu réew yu amoon ci 2012 maqaama Barack Obama dellu ci waat ba l'armée bu Amérique faate kii di Oussama Ben Laden muy ki ñu jàppoon ne moo sookee attentat yu 11 septembre yooyee sa dëkk bi di New York ñu tuumaal ko it ne ba mu ne dafa juddoo États-Unis dafa fen waa kayitu juddam ngir dindi tuuma yooyee di wone ni moom awaay la juddoo waaye juddoowul Afrique dal bi mu àndal ak Pastef bi farlu gi ci kàddu gi ak gën a gëm boppam ñoo ko dimbali ba moo muccal taxawaayam si bopp réew réewum Amérique ak li mu bokk ci taarixu àddina bi ba noppi. moom mi kon moo ñuy euh, gane si euh, ngan googa nag koppar yi sakkan kon dugg na ci euh, fanweer ak ñett jàpp juróom fukk ak juróomi milliards ci suñuy koppar moo di li nga xamante ni kon débloqué nañu ko ci tournée bi muy def ci Afrique ndax bu weesoo Sénégal dana àgg ca réewum Tanzanie naka noonu réewum Afrique du Sud karangeem nag dara dara kon bàyyiwuñu ko ci ndax rek bañ benn gàllankooram ci loola nag am lu ko waral ndax lu toll ci ñenti njiiti euh, réew yi euh, Amérique euh, faat nañu leen lu ñu mel nag la koy bañal ba waral taxawaay booba Ababacar Tunkara di dellusi si ci li waral dispositif bi kaaraange gu yemb te tar la waa l'Amérique tëral ci tukkiwu njiitu réew ma Barack Obama ci ñetti dëkku l'Afrique yi te Sénégal bokk ci ci ñàkk wóolu gi ñu yor kaaraange réewu Amérique am ci sécurité dëkkum l'Afrique yi waa l'Amérique indaale seeni matuwaay lu ëpp téeméeri takk der yu service secret ab porte avions wala ab navire amphibie yu ànd ak ay docteur ci suñuy ndox lu ne mel ñu yokk ci juróom fukk ak juróom benni woto yu amaale fukk ak ñeenti limousine yi nga xam ne ab avion cargo moo leen di yabe l'Amérique indi leen fii ay veeru blindé it dinañ leen yokk ci veer yi nekk lotel bi njabootu Obama di dal ci loolu ba tey ay avion de chasse dinañu awante ci jaww ji ku dégg bëccëg ngir bu ab avion jegee l'hôtel boobu tukki bu ne mel ñu xayma ko ci diggante juróom benn fukki million ba téeméeri million ci seen xaalis xibaar yu ne mel te waa Washington Post siiwal teg ci journalu Libération ca France bindaat ko di firndeel moytu bu amul xayma bi waa États-Unis di jëfee jëfin bu ne mel di it lu xel mën a nangu ndax seeni jaar-jaar wane na ko ci ñeent fukk ak ñeent njiitu réew yi fa jaar te Obama bokk ci ñeent ñi dañu leen faat Abraham Lincoln ca atum 1965 la ko benn sudiste dóor bal James Abraham Garfield topp ci 1981 ay weer yu topp ci falam William McKinley moom it dañu ko faat ci 1901 ak Oswald jël bakkanam ci atum 1963 ñu yokk ci loolu Ronald Reagan mi ñu bëggoon a rey it ca 1981 li yëpp yokk ci noonoo bi islamiste yi am ci waa l'Amérique di firnde rek it ne waa États-Unis am na lu ñu war a moytu buñ ci yokkee yëngu-yëngu ya ca Mali teg ci suñu dendandoo ak réewum islamist bu Mauritanie. ak gànna si wu ñetti fan bu Barack Obama bi li wérte wóor mooy sénégalais yëpp la ñuy yërndu ni diwlin ci poll kaaraange googu moo tax euh, yenn euh, bërëb yi tere nañ ko kon kan wi euh, ñëw Barack Obama boobu nag Sénégal kon rawatina Ndakaaru soppi xar kanam bërëb yu bare ña fa daan nekk ñu jële leen fa avenue Ponty jàpp Lamine Gueye corniche place de l'indépendance stationnement moom mayetuñu ko fa di Talla Mar yaraax na rawatina ci avenue Lamine Gueye ak Ponty daaw ñu ko woon nemmeeku dem bi ak dikk bi yomb lool benn oto amatul sañ-sañ taxaw bopp koñ bu ne takk der yaa ngi fa ci avenue Ponty ak Lamine Gueye ca place de l'indépendance leneen dañ fa nemmeeku kaaraange gi fa la ëppee muy ban jaaxle yi wala jéggi place de l'indépendance bi xel xalaatu ko wiiri rek wala dëpp le piéton yi mën a def ngir dem ci avenue Albert saro am ñu ne ndaw PDS yi ne woon dañuy toogaayu ñaxtu ci béréb bi moo ko waral wante ci kàddu tàkk der yi xamal nañ ne fii ba ganu Sénégal bii di Barack Obama di ñibbi dinañu aar béréb bi li xew ci pont yi Lamine Gueye ak place de l'indépendance la ñu nemmeeku ci corniche bi parking yëpp a yaraax amatul benn oto bu fay taxawaalu gane si bi Barack Obama di gane si Sénégal du ci kaaraange gi kese la ñu jël seeni motukaay ñii di yëngu tamit ci wàllu cet gi ñoom it ñoo ngi def seen kéem kattan ngir seetal dëkk bi walla fépp fu ñu njort ni Barack Obama dina fa war a jaar ci jiiru ñaari fan yi mu nar a def ci Sénégal te mu tàmbali ko ci alarba bii di ñëw ci mbir moom moomu àllarba ji kon euh, mu fi euh, aksi euh, moom kon Barack Obama lu jëm ci circulation bi yenn bërëb yi sax dañu ko faa tere jàpp 18h30 ba jëmale kon 22h 10h ci guddi boori palais boulevard de la République corniche ouest mosquée de la divinité Mamelles route de Ngor route de l'aéroport loolu lépp nag jural askan wi gàllankoor yu bari ñenn ñi sax gis ni nag mbir moom day bëgg a soof rawatina borom njaganjaay yeeg taximaan yi danañu ci dellusiwaat ci ñoom. ak reportage Aminata Mbaré Sow ñeneen ñoo xamante ni yëf yi te du sedd ci ñoom eh, taskatu xibaar yi couverture médiatique bi mel ni kon eh, du yomb ñu nga xamante ni ñoo ko war a àggi askan wi lu ca bari kon des nañ leen ko nittali ndax eh, mayu ñu leen kon ñu dem ca béréb yooyu fu ci bari ñu xamal leen ni mënuñu faa àgg lu ci bari te duñ ko war a mën a teewee Daniel Diouf xibaaru ñëw Obama fii ci senegal ba léegi benn baat moo wéy di law ci jotaay yépp muy sécurité maanaam kaaraange kaaraange googu nar a tax ba liggéeyu taskatu xibaar yi nar a des te jafe doore ko tey gii rek mu nar a agsi du journaliste yëpp ñoo am droit àgg ci biir aéroport gannaaw caméraman yi ak photographe yi am badge waa présidence de la république di ñaax sax taskatu xibaar yi ñu bañ a dem aéroport ndéem RTS dana wone image yi te kër yéenekaay yëpp mën nañ leen a jëfandikoo bésug ëllëg di alxames moo nar a gën a metti euh, pour journalistes yi ñiy saytu communication ca présidence de la république àddu nañ ci ci anam yu leer lu tollook ñetti téeméeri accréditation géré ko du lu yomb ndax mbirum sécurité mu tax sax ñu convoqué journalistes yi ci juróom-ñaari waxtu ci suba mu nar leen a fekk buntu secrétariat général bu présidence ngir contrôle yi war laata conférence de presse bu ñaari président yi di tàmbale conférence de presse bi sax journaliste ya ca nar a yëkkati ay laaj ñaari président yi ñoo leen di tànn ku ci ne ci sa wàllu bopp beneen rendez ci bésu alxames gi di ndaje bi nar a am ak kilifa yi gën a kawe ci këru àttekaay yi ci Afrique sowu jant muy amee ca cour suprême foofu it xibaar yi ñu baaxee démb ca conférence de presse bu waa présidence journaliste yi boolewuñ leen ci lépp ñu wekk ko ci kaaraange gi ñu war a garantir njiitu réewum Amérique visite ba ca gore sax gannaaw taskatu xibaar yi ànd ak Obama ak RTS kenn du am droit topp président américain bi ci journaliste yi waa présidence de la république xamal nañ ne jarul sax ñuy dem Gorée wala sax ku mu soxal nga demal sa bopp waaye doo teewee dara pourtant mel na ni journaliste yu bëri dañ ko nar a xooli ci télévision mbaa ñu nettali leen ko ñenn ñi gis ni lu normal la ndéem kaaraangeeg njiitu réew gu ëpp doole ci àdduna si la soxal gore googo la ñuy dem ak euh, Fatima Ba Alioune Diagne ma fa àndoon ndax askanu ko gore ñoom seen xel jugul sax euh, ci tukki bi nga xamante ni Bush euh, defoon na ko fii ay waxtu kon ñuy séntu Obama ñoom nag lañu fa gën a dund ci waxtu yi moo di kon njàqare ne nañ bëgg nañu Obama ñëw waaye nañu leen may akuk dal bëgguñu ci benn pression Fatima Ba. Gorée bokk ci gox yi nga xamante ni Barack Obama dina fa dem ginnaaw bi ay waxtu rek dese ngir njiitu réew yi Amérique ñëw fii ci Sénégal askan wa yeewoo ca Gorée ñoom dañoo ànd ak njàkkare ñoom kat bëgguñu dundaat li leen daloon ci bi fa George Bush ñëwee. bi Bush ñëwee noonu la ñu defoon. embarqué euh, dañu dañu dañu dañu dañu dañu dañu clôture dañu dugal ci terrain de football bi parqué ñu foofu comme des esclaves. chaloupe benn chaloupe moo amoon kenn mënul togg añ kenn mënul togg reer kenn mënul vaquer ci benn occupation restaurant yëpp ñu fermer leen ko Gorée dee ci saa si waaw yooyu nag lañuy ñaan ñu dimbali ñu ci daal. comme sama genre yi dañ ñëw romb la parce que da nga am ñu ne la ci quelqu'un de mauvais wala on te fouille devant tout le monde am ba parce que lan la am ñoo xam ne du ñu tuux am ñoo xam ne dañuy tuux mais il faut il faut être raisonnable quoi. ci semaine bi passé ay takk der tegoon nañ fa loxo ay xale ñi yeewoo ca Gorée di wéy di ko nakkarlu dafa amoon ronde bi mu amee ronde policier yi ñëw dugg ci kër yi euh, bi ñu jàppee nit ñi andi leen ci police bi moment bi ñu leen di déférer bi bi ñu leen di embarqué ci chaloupe bi si la population bi jug di leen accompagner léegi bi ñu leen bi leen dugalee ci chaloupe bi ba policiers yi embarqué mu am quelques policiers yu desoon léegi bi ñu bëggee disperser foule bi na si la ñu commencé jeter ay projectiles Euh, affaire bi dégénéré. arrivé Obama bi moo ko waral bu dul woon Obama bi ñun gore xamuñu yooyu gore doo dox di doxant ak ak passeport wala carte carte d'identité. li ñu fi def fii seen xale yi jàpp nañu ñenn ci rek xëy na jàpp nañu ñenn nga xam ne soo victime victime xaw ma mais daal affaire bi doy na waa tamit ñun suñu dëkk ñu am te gore buñ ne gore habitant yee tax bu fekkee ne à chaque fois ku baax di ñëw wala président di ñëw ñu ñu sonal ñu ñu ba duñu xam li ñu def tamit. boo mu yëg ñu bàyyi ñu suñu dëkk ñu nekk ñu nekk suñu dëkk moo ñu gën a. donte waa mairie bi ñu ngi dalal seen xel ñoom goréen yi di sàkku ci autorité yi ñu def ci seen kéem kattan ba duñ ci am lu leen metti président Macky Sall su fi jugee di dem États-Unis du yàq dara ci seen programme kenn du fa tëj restaurant kenn du fa tëj boutique kenn du fa tëj dara kenn du fa jàpp kenn waaw dañu bëgg ñu am ñu am ñu am fulla am fayda ba pare gëm seen bopp. dañuy topp occidentaux yi nii rek. ñun duñ fi jugee parce que Obama dañ fi ñëw ñuy génn fi ñu dëkk di daw di dem feneen Obama bu ñëwee fii la ñuy fekk Obama bu ñëwee Sénégal sénégalais yi ñoo tax muy ñëw Sénégal. su ñëw gore gore yi ñoo tax muy ñëw gore. askan wa woo ca gore ni duñu nangooti ñu leen di toroxal ci noonu ñu ciy xaar ndimbalu gouvernement bi ngir rek ñoom it ñu mën a teeru Barack Obama ni mu waree. niñ ko waxee sànq lu mu ci mënti doon dem ak dikk bi moom daat nañu koy yemale eh, la ko dalee kon ci àllarba ji eh, jàpp kon ajjuma eh, lu ci bari ci mbedd tere nañu ko askan wi rawatina ak woto yi ñu fay jaar avenue de la république boobu pare corniche mosquée divinité mamel route de Ngor route loolu yëpp am na waxtu yoo xamante ni askan woowa fa faag rawatina borom kaar njaga njaay yeeg taxi Aminata Mbare Sow Adja Ndiaye reportage reportage. ñëwub Barack Obama fii ci ndakaaru andi njàqare ci dawalkatu car rapide yi oto bi muy yore e, faral di daw diggante Mamel Ngor jàpp aéroport moonte yoon woowu dañ koy tëj bu juróom benn waxtu jotee jàpp 9h ci guddi. fii laay daw fii laa mën a daw am lu ma mën a versé muy diggante Sandaga ba Ngor ak e, lu mel ni Yoof ba Tongoor ba Padoa foofu mooy sama route ba aéroport même aéroport daa bokk ci arrêt bi a soxla war a kii ci ñun ndax ñu bari dañ fay wàcc léegi bu buñ fa buñ ko baaree day feeñ ci li ma doon versi parce que ma doon versi journée demi journée laay mën a am. une semaine nag ni kenn mënatul dox dara foo aw ñu la dugal ndax lan xanaa doon ñu citoyen moonte du dawalkatu oto yi rek ñoo nekk ci njàqare kii euh, di ab liggéeykat bu faral di ñëw euh, ci côté Almadi ne moom xamul naka la nar a def euh, ba ñëw liggéey si. samay activité day dem côté aéroport ndax dafa am ay yoo xam ni dama ko fay jëli parfois. léegi bu loolu amee man mën na indi problème ci li may liggéey daal maanaam. ma taxaw nii taxaw ma ci kaw tali mais fii ma taxaw nii suma client bi laa doon xaar muy journaliste américaine mu doon jël ay photo fi lañ ma fekk jël suma permis ak suma carte grise te taxaw ma ci kaw tali baarew ma kenn. ñenn ci ñoom sax ñoom euh, tàmbali nañu ut ay pexe ngir mën a dox seen i soxla. léegi bu ñu tëjee yoon bi ma ko fa seenee jaaree beneen bi. su ma ko mënta jaaree beneen bi rek ma def comme ni ma la ma daw ko bi tëngee Dakar ba keroog affaire bi arrêté su arrêté rek ma kii. bu fekkee amal na dëkk bi njëriñ li mu ñu yàqal ñun bon mën nañ ko septe mais bu amalul dëkk bi njëriñ li mu ñu yàqal day métti ci ñun parce que man fii rek laay daw. lu ci mën a doon ñenn ci sénégalais yi ne gan moom yomb naa muñal ñetti bés yi ñuy toog yooyu te du ñu dem ci yenn bërëb du ñàkk dina leen yàqal dara ci seen wàllu koom-koom waaye du gan bi moo ko laaj. ne leen ci wàllu xibaar euh, après sama gox sama kër maire bu ndakaaru euh, daal dinay sumb meneenum mbir Dakar set wecc euh, benn pa single nag la ci génn ngir sensibiliser ci askan wi mu lëkkaloo ci kon ak mouvement yu bari ak i musicien lu toll nag ci cent mille CD nee nañ danañu ko dis jox askan wi ngir nag wàllum set des ci xel yi rawatina nag ñu koy jëfee may mun a njaay ajaay njaay la seule ville où vous avez envie d'aller au petit coin, vous n'avez pas Les gens sont dans la rue contre les murs. nous devons y mettre un terme. ñëpp dégg nañu ko ñaax askan wi ci nan nañuy setalee dëkk bi moo tax a jug mairie bu ndakaaru mu ànd ci ak ay waykat ñu fent way bi duppee ko Dakar Set Wecc. en plus de formater. dinañu fexe ba ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci ndakaaru ba ñu changé yenn doxalin yi ak yenn gis-gis yi loolu nag dañ ciy ñaax képp koo xam ne yaa ngi nekk fii ci ndakaaru à nous accompagner. téeméeri junni seede jot nañ koo defar. lii lépp ngir askan wi dégg tegtal yi. désormais projet Dakar set wecc daal dogal biñ ci jël bu bees moom mooy nañ ko doore fii nga xam ne moom mooy ci boulevard Pétavin dem ba avenue Albert saro foofu nag duñu bàyyi benn oto mu daal di fay taxaw. waykat yi ci mairie bu ndakaaru àndal rafetlu ko. initiative bu am solo la boo xamante ne bii euh, ñun ñëpp en tant que sénégalais euh, dañu ci dañu war a ci jàpp. moo ci nekk euh, Max Crézy Ablaye mbay ak man ak Numukunda moo ci def koraay donc ñun ñooñu ñoo ci nekk quoi. CD bi mooy sensibiliser euh, population yi pour que ñuy bàyyi xel ci yàq-yàq yi nga xamante ni moom la ñuy def di di di sàcc ay couverture dégg déggu yi ak di sàcc fi câble yi pour ay ay bronze ak yooyu. ay at a ngi nii maire bu Ndakaaru euh, soobu ci tëralin yu yees ak way bi ñu fent duppee ko Dakar set wecc dinañu wàcc ci askan wi. li ko dalee njeexitalu weer bi wéyal ko ba décembre. Dakar set wecc googu nag ak ndakaaru mi ñuy defar kii di eh, maire bi Khalifa Sall xam le ni eh, li ko waral du ñëw ko Barack Obama fii kon ci payim réew mi eh, leeral yi mi ngi ko dénk suñu reporter. à ceux qui pensent que le dama bëggoon rek xamal ñi jàpp ne visite Obama bi moom moo tax ñuy seetal mbeddi Ndakaar yuy ne juum nan ñun li yàgg nañ ko def te dañuy wéy di ko def ngir lekk def suñ kéemtulaay kàttan ba kenn dootul jaayati ci mbeddi Ndakaar yi te luñ ci góobe dinañ ko gaar. prix ba tey ci wàllu xibaar addu ci euh, njàng mi euh, syndicat unique et démocratique des enseignants di Sénégal mi jël dogal euh, xam le ni dakkal na ay yëngu-yëngoom ci biir CUS amuñ ko da xam le nag ci jàkkaarloo bi mu sekoon ak waaye taskatu xibaar yi nee nañ kon examen yi ñuy dëgmal ak yu ni mel ña koy boycotté ñoom duñu ci bokkul la ko waral gis-gis yeeg intérêt yi ci biir CUS dafa wutee Fatou Bintou Conté Mardian ni ki si tey àndandoo bi amoon ci diggante ñi di waa SUDES syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal ak ñi di waa CUSE di cadre unitaire syndical de l'enseignement dakk na bile syndicat du sud-est moom jamono ji suspendre na li nga xam ne moom mooy participation ci bile coalition nga xam ne Oumar Waly Zoumarou moom moo ko jiite. suspendre suñu participation ci ci biir ndax cuse nu muy doxee ci weer yi passé ñun euh, daa ko ànduñu ci ndax euh, intersyndical toujours dafa mës a fonctionner ci base consensus ñu diisoo ba jubóo ci dara balaa ñu def ñu jëf alors euh, li ñu constaté mooy que ci cuse dañu ne majorité lii la wax donc loolu lañu ñu def alors que pour nous intersyndicale depuis que ñu sos intersyndicale yi depuis les années 1980 mu doxul noonu c'est toujours le consensus loolu lañ gisee donc comme mënuñu juboo ak ñoom ci ci kaw loolu donc ñun on préfère suspendre. tey nag ci talaata gi ñu dajan tekk taskatu xibaar yi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñuy naataango Amadou Diaw ne dañoo fas yéene surveiller ak corriger lii di examen yi ba ak lépp lu ci mënti am. duñu duñu boycotté examen yi. ndax d'abord euh, boo lire boo jàngat euh, histoire des luttes syndicales boycott examen musul réussir un deuxièmement SUDES dafa ne sa ça ça dafa judd pour défendre l'école publique et les enseignants donc à chaque fois que intérêt école intérêt bu am maanaam euh, école moo nekk en ñun ci boobu lañ lañ la ñuy privilégier plutôt que la revendication parce que revendication kooku mun na xaar parce que de, de, de, avec le temps ce sera satisfait mais mënuñu indi une crise profonde du système éducatif avec le boycott des examens. examen yi ci bokk. dinañ ci bokk ak lu mën a am. ci bokk et tey ñu ngi ñu ngi lancé appel ci eh, suñu militants yëpp ci jàngalekat yëpp. nañu def seen liggéey ñu waree ci examen yi. ñoom si waa si jàpp nañu ne ngir situation bi nekk ci école bi mën a saafarawu ki nga xam ne moom mooy nguur gi dafa war a remplir yenn conditions. mooy que premièrement nañu génn li gën a gaaw ci crise bi euh, ci crise bi crise bi bi ñu nekk nañ ci génn mais surtout nañ fexe ba dialogue social am ci biir éducation am na benn structure bu ñu tuddee. comité du dialogue social secteur éducation samp nañ ko mais depuis musul fonctionner boobu bu ñu ko fonctionner fonctionner loo mun na prévenir crise yi walla def que crise yi même bu amee du law crise ba ca Mali taxawaay bi ci jigéen ñi war a am ngir delloosi ci eh, jàmm waxtaane nañu ko eh, ci ab lël jigéen ñooñu nag fas yéene cee taxaw dëgg xar ci kon eh, seen tànku tuba yi ñu gis ni ñoom ci yoon woowa ñu tegu ngir jàmm dellusi ci réew ma dañu leen caa beddi Cheikh Abdou Khadre Mbacke Seck Adja Ndiaye soxna yi dese nañ leen boole ci wut ak jàmm fële ca Mali loolu doon seetlu bu jóge ci lël bi waxtaane Mali maanaam réunion sur l'inclusion et le processus de négociation au Mali. Contre euh, a été organisé pour euh, répondre à une demande des. bi leen dajee dañ ko amal ngir jàppale jigéen ñi nekk ci Mali ñu gën a mën a bokk ci li ñu naan processus électoral ak négociation ci wàllum jàmm ci nga xam ne day faral di am ci seen dëkk ñoom jigéenu Mali yi nag dañoo nekk ñu jaxlaf loolu wante négociation yii fi amoon ñoom kenn boolewu leen ci daanaka. Absolument. Euh, mais elles, euh, une fois que les négociations étaient euh, terminées, elles étaient totalement invisibles. fexe am jàmm ca Mali doon na lu jàmp jigéen ñi dugal ci seen loxo lu waat la. xam ngeen fépp foo nga xam ne jàmm nga fa boo boo seetloo jigéen ñi am nañ ci rôle bu ñu ci joué bi ñu commencé nag histoire bi au Mali ba léegi dañu remarqué ne ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk baat. mooy ñi représenté euh, secrétaire généraux yi Nations Unies par exemple ou bien la présidente ou le président de la commission africaine mm, wala la CEDEAO gisuñu benn yoon fu ñu fu ñu àndee fu ñu joxee cër jigéen moo tax jigéeni Mali yi ak jigéeni Côte d'Ivoire yi ak jigéeni Guinée Bissau ak tuuti yu Sénégal ñu ñu ñu ñu décidé toog. soxna yi cosaanoo Mali ñaawlu nañ bedd gi ñu leen bedd ci waxtaan ngir wut jàmm. en ce qui concerne les li soxal soxna yi jamono ji dañoo war a jóg booloo doon benn ngir mën a bokk ci waxtaan gi ndax waxtaan ga ñu tàmbale woon fële ca Wagadugu ñun kenn boole ñu ci woon te xeex bii nga xam ne moo am foofee ca Mali ñun ñoo ci gën a sonn. pratiquement les victimes euh, de de. de cette occupation euh, par les djihadistes. centre pour le dialogue humanitaire moo woote bi leen ndaje. moom nag doon na kuréel gu farewul fenn li ko tax a jug mooy dakkal fitna ci àdduna bi yëpp. wàllu tàggat yaram ñëpp doon ko xaar fanweeri fan ci weeru juin bi Eumeu Sène Modou Lo boobu kon jàpp leen ni euh, dootul am euh, la ko waral Eumeu Sène la ni dafa gaañu euh, cer kat bi ba daal docteur bi seet na ko seen CNG annulé combat bi ngir leeral yëf yi ñu ngi yàq yor jokko kon g Euh, Thierno Ka ñu koy euh, jéem a woo mu mel ni kon euh, antoogul dinañu ci dellusi ak moom fii boobu ñu agsi kon ci li nga xamante ni moom moo di yéenekaay yi fàttali xibaar bi rek ci wàllu tàggat yaram Eumeu seen Modou kon dootul am Eumeu seen la ñu ne dafa gaañu ceerkat bi ci entraînement bi mu doon def rek ci talaata ji docteur bi di àddu naka seet na ko daal ba dëggal boobu blessure g kon leen na combat bi xamante euh, ni moom moo yoro jox ko CNG dina ci indi leeral ca kanam tuuti moom Thierno Ka feeg boobu Mouhamed Ndiaye ci yéen kaay yi. jërëjëf enquête observateur le quotidien populaire las pap teyel ma noonu. mi ngook yéene kaay yëpp ñoo bokk lu ñu xëyandoo mu di lan ñëwu ko Barack Obama di ñu xamal ne njiitu réewu États-Unis tey ji ci vingt heures trente lay ñëw fii ci Sénégal Pape yóbbul journal yi voilà mi ngi noonu nañ ko benn benn dooree ko observateur mi xëy dikk ñun eh, ci lu aju ci ki nga xamante ne ji moo ti njiitu réewu États-Unis Barack Obama ak wàllu karangeem journal bi nañu Barack Obama déjà kase na Barack bi la tax mu wax ko yéene kaay bi dikk ñun ci benn bataaxal boo xamante ne ji ma nga bawoo ci secrétaire général bu haute sûreté aéroport yéene kaay gën a tengal karangeek Barack Obama brigade mixte bopp junni euh, élément ñoom ñoo nekk taxawal nañu ko leneen loo xamante ji am na ci observateur leeral ñu ko mu di ki mooy princesse Cheikha euh, Moza moom Qatar la dëkk moom ay rakkam yu jigéen ak duggoon seen jet privé bëggoon a teex waaye ca diwaanu Ndar lañ leen dëppee dañ leen a dellowaat mujj ñu fi wàcc lépp rek ci yéen kaay bi jublu moo di dañu xamal ne euh, karange ak Barack Obama gars yi caaxaane wuñu ko la seen ne ko xamoo ci oto yoo xamante ne ji ay blindé lañu ak avion ñooy topp Barack Obama la ñëppay laaj nag moo di Barack Obama bu wàccee ay daporom Dakar moom njiitu Macky Sall ci ban wata la ñuy tugg populaire nañu kaarange googee ñi nga xamante ne ji ñoom ñooy euh, gars yi Barack Obama yi caaxaane wuñu ko bañ na ko ba Macky Sall ak ñi ko daar yoru kaarangeem sax gars yi far dañ leen a désarmé ci nañ leen leen désarmé journal bi yore wàllu sécurité ca palais ba américains yi nee na bu weesoo chef sécurité Macky topp ci moom bu fi kenn yor fetal wala ngànnaay yi fi yemul la publique yi a xamante ne ji dañoo bëgg a ñëw ci textu Barack Obama ku ca nekk danañ la def loolu ñu naan détecteur de métaux xool ndax weña ngeeg yow duñ ca yem de ñu ko leeralal ca kaw ci kaw loolee lépp ñu dem ci libération fekk fa ñi nga xamante ji ñu ñu jug teextu ji Barack Obama Pape Samba ubbil ma journal bi kii ngeen di gis mooy Abdoulaye Mountaga sa di sëtub euh, Cheikh al Maulana euh, El Ibrahima Niass sàkku na ci askanu Sénégal ne ñëpp génn teextu Barack Obama ndax dafa gis ne Barack Obama ay tànkam fii ak Afrique du Sahel ak ni coow li mel Obama ñëw Sénégal mbir la moo xamante ne ji daf ciy delloo njukkal diine islam euh, ci woyule wàll le quotidien nañu ñëw Barack Obama askanu Sénégal Sénégal ci boppam dañ cee Barack Obama ñëw jël loxoom dugal ci poosam génnee koom joxe ngir ñu financé ko yamul ci loolee de wàllu courant bi wàllu électricité bi lépp ñoo ngi sikki mu Amérique ngir mu taxawu ci ñu taxaw tuuti xooli njiit réew mi Macky Sall ci direct info ak journal beeg li mu xëyee journal bi nañu lu aju ci mbirum annonce yi am na ci poñ yoo xam ne faaw Macky da cay wax lan la cay wax journal bi nañu jàpp leen jamono jamuy nekk premier ministre bu Sénégal jamono joojee lañ doon defal annonce yi bari nay projet yoo xam ne moom Macky Sall moo ko approuvé ba tax ñu ko yemuñ ca de ne it yi nga xam ne def nañu ko vingt six pour cent moo ko joxee journal bi nañu loolee liñ ca ñañ fa jëlee bañ leen di indemniser nee nañu Moustapha Niass bokk na ci ñu ñuy indemniser loolee lépp yéenekaay bi di direct info nañu Macky Sall war na cee tontu nday Karim Wade di Viviane Wade tontu na journaliste yi Walfadjri lu aju ci Karim Wade ca Kasaba lu aju ci Abdoulaye Wade aw nekkinam lu aju ci l'hôpital Nina Fechat loolee lépp waa Walfadjri seq nañu waxtaan ak première dame du Sénégal ba woon mu leerale leen ko lu ca nekk mu wax ca kon li nga xamante ne ji lool la ca xalaat ñu fekkante ji ci libération toppi mbiram ku koy Samba waxoon nañ ko mi ngi ci suuf waaye bàyyi na ci jamono coow loo xam ne fayagul léegi ndax dañu ne am na dentité Sénégal Abdoul Mbaye weddi ko Amnesty International jugaat weddiwaat Abdoul Mbaye yéene bi nañu euh, muy libération am na lu ca feeñ ndax ku koy Samba Sagna dentité bii la yoroon muy dentité Sénégal te bañu ko xoolee ba càmbar ko yëf yi foo am na ci lii dëgg-dëgg mooy Lionel Messi ci Sénégal kañ la suba ci alxames ji tous les sports xëy ci dellu dimbale ndawi Sénégal yéen a bi nañ yamu ca ndax Messi xam la ne a voyage amit du yomb bu ñëwee ndax dana ñëw Dakar dañu koy laaj bu ñëwee ndax Mbour lay dem dañu koy laaj li ma leer ba leer mooy daal Lionel Messi moom ku ci bëgg a xam lu leer koj ko Futurs Médias ñu ko leneen feneen muy lan ci sunu làmb yéen kaay bi xëy ñu xamal ne lu aju ci combat euh, Tyson euh, borom génération bul faale ak kan ki nga xam ne moo di borom takk ci ripp Tapha Tine combat pour mu taxaw kan moo koy taxawal yéen bi ñu la doon kin de l'arène Gaston Mbengue mooy bëgg a dellu siwaat indiwaat kon boobile combat combat bi ñu taxal ba noppi soreetul Eumeu Sène ak Modou Lo yéen a bi nañu fanweeri fan la ci weeru juin ci stade Demba Diop combat boobu yéen a bi jox na xalaatam ki nga xam ne moo di El Hadji Papa Dieng ku xam Bécaye Mbaye xam ko ñooy ànd la mu ca xalaat moo di combat boobee lu ne mën na caa ñàkk ba mu des ay kurpañ foo kurpañ yi jugee mu ne mën naa jugee fu nekk ba suba ak jàmm Modou Mouhamed Ndiaye kurpeñ du jug ndax ni ñu ko leeralee Modou Lo seen Sène dootul am Modou Lo euh, kon euh, Eumeu Sène dafa am gaañu gaañu ci entraînement am démb euh, cerkat bi ba waral gannaaw ba ko docteur Upa CNG bi xoolee moom docteur Abdo CNG kon annulé na combat bi jokkoon nañ ci ak kenn Ka mu war ci àddu waaye mujjuta teew du ñàkk ñu si dellusiwaat ci ci suñu yeneen i xibaar 19h 20h lay doon ñu yendu jàmm.